candidat la ànd ci ak frère am Ahmed Youssef Benjelloun ñu bëgg defar Kaolack ku nekk Kaolack da nga naan Kaolack commune ak département bi mooy quatorze communes yu nekk ci département bi yëpp président Serigne Mboup doon candidat boo xamante ni dafa def avant mu naan jox leen ma ma liggéey dafa am référence ku xam cœur de ville bi ma nekk muy projet vingt hectares état bi jëloon ko dem ba tële woo opérateur économique Serigne Mboup kese c'est l'unique homme boo xam ne nee na dama ciy jël defaat sama alal ndax Saalum ndax Kaolack koo koy Serigne Mboup Serigne Mboup usine Domi Textile bi nga xam ne tëjoon na depuis vingt ans président Serigne Mboup moo ko jël moo ko taxawalaat ba ay doomu Kaolack di ci dund Serigne Mboup mooy ki nga xamante chambre commerce bi depuis dix ans ci loxoom lañ ko teg ñun bu njëkk xamuñu woon chambre de commerce bâtiment xamoon waaye tey Kaolack yëpp ñu ngi gis seen bopp ci chambre de commerce jigéen ñi gën nañ ci gis seen bopp madame Tall damay confirmer li nga wax léegi fii xaaxun barki démb rek ngeen fi jël dix groupement de femmes dugal leen ci financement yi ñu remercier bu baax président Serigne Mboum président Serigne Mboum nag programme am je pense que suñ koy wax dina gën a guddi mais dama koy tënk rek ku xam programme président Serigne Mboum mooy setal suqali ak sàmm setal suqali sàmm bi ci njëkk mooy setal dëkk bi setal dëkk bi mooy nettoyage assainissement setal jikko setal suñu moomeel loolu mooy setal mooy éclairage bi def ko li tubaab naan cadre de vie mooy maanaam def Kaolack dëkk boo xamante ne day neex a dund ku jub ne da ngay dem Kaolack waa Kaolack di gis seen bopp soo sonnee am foo dem fajoo foo loo bëgg nga dem def ko loolu mooy setal beneen bi mooy suqali président Serigne bu fu ñu koy xaar mooy économie moom la olof naan suqali mooy économie suqali dëkk bi parce que nit ñi suñuy xëy su ba ngoon lan lañ bëgg muy koom-koom lan la ñu def seen biir poche président Serigne bu foofu lañ koy xaar am na projet yi am na xam-xam am na partenaires yi andi na fi ay projet yoo xamante ni commencé nañ ko ñu ko ciy galgal président Serigne Boum nag am na ay partenaires yoo xam ne suñ fi ñëwee waa Kaolack du ma ne ñëpp dañuy liggéey de waaye lu ci bëri lu ci bëri dinañ gis seen bopp ci projet président Serigne Boum parce que fu mu toll nii suñu ndaw ñi suñu doom yi suñu rakk yi ñii jàng nañ ba am seen diplôme toog ci dem di dawal Jakarta ñii jàng nañ ba am seen métier dem di dawal Jakarta dawal Jakarta kat xeebu ma ko waaye ñu ñëpp xam nañ risque yi ci nekk. ku sañoon sa doom su demee ba jàng ba dem amee soit mu dem bureau wala mu dem ci yenn projet yi di ci liggéey président Serigne Mboup am na ay partenaires yoo xam ne pare nañu pour signer pour ñëw liggéey kaw Kaolack bi ci des mooy sàmm sàmm projet président Serigne Mboup mooy sàmm suñu moomeel sàmm suñu yëf sàmm suñu alal sàmm suñu suuf am na ko gën fi wax léegi parce que suñuy maam yi ñu ngi fi am fi suñuy alal mais ñu ngi koy fokkati ñun ci suuf yi sàmm budget mairie bi parce que ñëpp xam nañu budget mairie bi mu ngi nekk ci trois milliards trois milliards cinq cent par an mën na def projet waaye Kaolack kenn gisul ci sa bopp kenn gisul boppam ci budget mairie Kaolack dawalkatu jakarta yi ñu ngi fay seen taxe waaye gisuñu seen bopp arrêt jakarta yi ñoo koy defal seen bopp donc di wax ni président Serigne Mboup ak ah Ahmed Youssef Benjeloun am nañu projet boo xamante ni que li ma wax ni yëpp projet la boo xamante ni si commune bi ak ci département bi parce que commune bi mënul dem sans département bi département mënul dem sans commune bi nañu votel président Serigne Mboup votel Ahmed Youssef Benjeloun ñu jël Kaolack dexal Kaolack Kaolack ñu delloo ko fi ñu ko fekkoon bu njëkk ci suñu maam yi nekkoon Kaolack ku tëjoon da nga naan Kaolack ñu delloo ko Kaolack di wax ni nag ñu ngi jëm ci fin campagne ci ma jëm nii soxna si nga may ñu tuuti rek dama bëgg ñu déglu ko bu baax élection yi une semaine moo ci des dimanche prochain je pense que kuy campagne campagne nga ba pare dañuy ñëw rek incha allah dañuy ñëw rek pour finaliser di leen ñaan bu ñu topp ñu ñi ci violence yi nañu dem voter sans violence nañu dem voter ci calme di lancer nag un appel aux autorités les autorités de Kaolack ñu ngi leen di lancer un appel di leen dànkaafu ñu may ñu tuuti rek ñu may ñu tuuti di dànkaafu autorité yi di leen lancer un nappel muy le préfet de Kaolack ak le procureur de Kaolack xam nañu kat waa camp bële li ñuy préparé ñun xam nañ ko sacc élection yi lañ nar te ñun buñ ko nangu bu ko benn doomu Kaolack nangu xam nañu seeni i njuuj njaaj ak seen i galgal liñ nar yëpp ñun xam nañ ko yëg nañ ko léegi nag may ma may ma léegi nag préfet procureur gouverneur na ngeen atte atte ngor na xam ni président Serigne Mboup ak Amadou Sy Bengelloune bu soobee yàlla dañuy gañe loolu délégation bi maa ngi leen di jox message ngeen yóbbul ko ci président Serigne Mboup ak Ahmed Youssef Benjeloun madame Tall soo leen demee ngeen ne président Serigne fi fii xaaxu moom mokk na fii moom fii moom mokk na xaaxum ñëpp je prends en témoignage xaaxum ñëpp xaaxum ñëpp ñu ngi voté fii groupe scolaire Ndorong Mansour Ba je on prend un engagement fii dinañ ko gagné quatre-vingt-dix pour cent quatre-vingt-dix pour cent la ñuy gagné président Serigne Mboup nag lu mu am fii xaaxum moom la am ci quarante cinq quartiers yi nekk ci kaw Kaolack yëpp moom la am ñu dégloo tuuti rek bay leen tuuti lu mu am fii xaaxum moom la am ci quarante cinq Kaolack quartier yëpp di wax ni nag bu soobee yàlla Kaolack incha allah dinañ ko gagné à soixante quinze pour cent lu mu dee dee dee dee dee dee incha allah lu mu dee dee dee dee bu soobee yàlla lu mu dee dee dee lu mu lu mu dee suñu objectif quatre vingt quatre vingt dix la mais lu mu dee moom soixante quinze moom jël nañ ko teg ci gannaaw incha allah tout tout à l'heure maa ngi doon wax maa ngi nuyu suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo Fallou Dibo maa ngi leen di lancer un message sëñ Babacar Mbacke mu ko boodoo day ñëw par force ma maa koy day ñëw par la force dama koy jëli nee ko suba paree li def dinaa ñëw te day ñëw par force taalibe teg nañ ko fële sama frère la sama mag la day ñëw ànd ak ñun di lancer un di lancer message nag di lancer un message. yéen sëriñ si sëriñ si s'il vous rek sëriñ si dem leen di ñaar ngir yàlla ngeen libéré seen taalibe yi taalibe yëpp sëriñ bu ba amee benn lu lañu àndal dañoo tënku ci yéen ndax taalibe ak ngor ak kilifteef libéré leen seen taalibe yi ñu dem votel le président Serigne Mboup ak Ahmed Benji Lonu rusoon nañ leen ko wax nag maa leen waxal libéré leen taalibe ñu dem votel di wax nag fi may daanalee rek mooy kilifa gu mag sama yaay day tere ma tudd ko waaye naa ko tudd tey Macky Sall Macky Sall ñu ngi lay wax fii Kaolack waa Benno Bokk Yaakaar pert nañ ko soo ko xamee perte nañ ko soo ko xamul perte nañ ko dañ lay nax ànd nawle ànd liggéey la ñu wóolu ànd nawle ànd liggéey la ñu wóolu Macky Sall fii amoo fi dara fii moom amoo fi dara liñ lay ñaan nag liñ lay ñaan nag mooy na nga àtte xeex ci dëgg ak ci ngor ndax teel a nangu day rafetal jéem te fii daanu ngeen ba xalawul jërë ngeen jëf